day suñu jëwriñ ji Habib indil sëñ Assane duñ ni guléet Habib bi mu ni salaamaaleykum ñëw fii ñëw fii ci kër sëñ Assane ñu julli fi juma ñu julli fi juma mu tombee tabaski mu ne ku jox sëñ bi xar ma jox ko man booba du ñaan sëñ bi sama xar laa soxla sama xar la lay indil tey bi mu ko ni mbaaleen bii sama bés la Habib ni ko dootu sa sama bés la lii asaka yéeneem la waaye li Habib yéene sëñ Assane sëñ Assane xam na ko Habib xam na ko ñoom xamante nañu ne fekk na ni rek teraanga kenn du ko nëbb bu ñëwee ci mbooloo mu demee nii il faut que ñu wane Habib ni mu yëg moo waral lii parce que dëkk bi li muy yaatu yaatu li muy rëy rëy rëy bu fekkoon ne Habib yëgul sëñ sëñ ab sëñ Assane mi kon tey du fi toog booboog léegi di fi ñëw naan bay joxe teraanga yëg moo ko waral yëg da koo yëg man sëñ Assane nee naa ku ñëw danga may danga may fekk moom ku dem danga may bàyyi moom. Habib mii bi ma ñëwee ni sëñ Assane dafa am ku may àndal te dañuy ndokk si dog wut maire bi Habib ñaa la tudd ba ma ko bëgg indi ma ànd moom ñëw fii sëñ sëñ sëñ Assane ñu ko waaye sëñ Assane ni ko Habib ni ko yaay sama conseil Habib du def ta laajul sëriñ bi te bu ko bu ko waxoon lu bon wala mu xelal ko leen Habib doot fi ñëwaat kon dañuy ñaan yàlla na yàlla ànd yokk yokk seen ànd bi sëñ Assane li ñu yéene xam nañu ko li ñuy wutit am nañ ci yaakaar man nee na Habib keroog man am naa yaakaar ni sëñ Assane dina yëkkati mairie Thiès bi teg ko suñ loxo man loolu leer na ma nañ te parce que man sëñ Assane damay toog di wax ak moom ba ma musaan toog nii ba ci Assane mii ak bras bi ba ci góor gi daf ma yow loo seq ak sëñ Assane moom ku wax mu ne leen ma sama ma faal la waaye man sëñ Assane sama sëñ Assane la ku nekk yéen a bokk sëñ Assane waaye man sëñ Assane dafa am fu ma teg bokk ma fa teg kenn du ma laal loolu lu ma leer la ma ànd ak moom ànd kook Habib sëñ bi loolu ay kaddu la yoo xam ne nga ji laa jël te ko sa loxo waaye yaag abi bu ngeen àggee ca kaw la ngeen di waxtaanee loolu la jërëjëf. na nga fexe ba noobale say loxo rek nu nemm rek toog waaye bul yëngu ndax boo yëngoo loolu fa joxatee doo ko xam abib nag ñun liñ say loolu ci wax ji mooy dañuy santaat yàlla sëñ Assane nag nee na mi ngi santaat yàlla bu baax ju julli soyante bi si ajuma ju tedd di gi nga fii lu fi nit ñàkk yaa ko xam bopp waaye lu fi nit am yaa ko may sa bopp lu tax jëmm la joo xamante ni du ne kenn lii laa bëgg waaye ku xool dàkk ak bëggam ba di ko def di nga daje ngëneel yàlla yow na daa mel ni yàlla dalaa yee yeegi nag mënti weesu toujours da ngay xam fii xesan nga fay teg sa baaraam di ko wokk te boo ko wokkee lu tubaab naa daa la comment loo xam ne boo ko laalee laal lépp nu mu tudd si français ah loo xam ne boo ko nee cuut rek. xol yëpp yëg ko loolu lay def lii mu def nii njëkku fi waaye bésam mii moo fi gën a sell ndax ni mu koy defee moonu neex dañuy xam ne yàlla rek a tax yàlla jooju tax nag ak li nga fi wër moo tax ñun ñu am yàqin li nga bëgg li fekk yaa ngi teg sa tànk fii nga ko teg di nga ko jot ni nga ko bëgg a jotee lan lay ñaanal ñun mooy bul fuuy bul bew bul yëg sax li nga def. ñëwal ci moom bul yëg it lim lay wax. yow li la ñor nga di ko def def ko bu bëggee defal bu melee neen defal waaye xam naa daal ku fexe ba muy bëgg yàlla dina bëgg si yow yonte bi bëgg si yow sëñ Tuubaa bëgg si yow jaam ñi bég ci yow te ñu kin bëgg si yow loo wut di nga ko am kon ñun ñëpp ñun taalibe yi daal ginnaaw cantuk sëriñ bi suñ cantuk bopp lan lay joyal loo tax rip ripalal boo boo geestoon ñu xesaw soxu no ko la domp tit ñu dina ko gajji loolu la nu man ndax sëñ bi moom ku fexe ba mu bëgg ñun ñoo lay fay ñun ñoo lay bëggal kon taalibe yëpp seen xool sedd na yàlla na yàlla lafal cat lii rek wa salaam. nangu leen nangu leen ñaan amiin ak sëñ Bamba yàlla boo dee jërëjëf euh, bu baax a baax euh, di la jox sa wàccuwaay di ziar euh, ñi fi toog ñëpp di bu baax a baax Euh, li may faral di wax sama gars yi rek ma ne ko sëñ Assane yàlla mu ñu boole mu doon sama sëriñ mu doon sama kilifa mu sama xarit euh, yàlla dafa defoon daal ñu toog fii ngeen lenn rek moo la ñor mooy sa bés bi man de ma ñaanoon la ma de incha allah rabbi bés bi bu ñëwee de lu mu si mun soobee yàlla naa si def dafa fekkoon nag euh, fàttoon naa bés bi ma amoon engagement yu ma jël sama yàlla dafa ma natt rek bu ma xesee ba jox sama kàddu te doon góom si man bu mu ko deful rek góom bi day day métti si man loolu engagement yi xam ne dam ko jëloon moo tax bëgg naa si bés boobaa bës bi maam fa délégation mu xam ne ñoom laa yebal ni ñëw soofu représenté ma si kii bi la nag parce que dama am ay gan yoo xam ne jóge bitim réew yu ñëwoon dafa am benn sommet benn forum bu war am bu war a am Turquie Istanbul si wàllu suuf si wàllu foncier ñoom ay doomu Sénégalais la ñu yàgg bitim réew yàgg ñoo Sénégal bëgg investir fii am ay jafe-jafe ñoom ni ñaal ma nag ni dañu bëggoon man ma ñëw ak ñoom defal benn thème si wàllu foncier si wàllu suuf ni ñu ko amee parce que dañuy ñëw saa yi ñëwee dañuy yaakaar ni képp ku am acte de vente am nga kayit ma ne loolu du kayitu kër il faut ma leeral leen wax leen processus bi ñoom seen bopp ñoom ñoom la a daje bu mag et puis si loolu le 11 12 dañu invité dañu invité seen dëkk Turquie si loolu sëñ bi li wax rek mooy li indi nii xeeb naa ko yàlla xam dafa fekkoon tamit mu amul gàmmu sama dëkku maam mooy maatam ba keroog ñuy déggal téléphone ba ne la maa ngi maatam loolu moo tax mais xam xamal li incha rab rabbi de euh, dañuy wax rek euh, àdduna maanaam mu ngi mu ngi suñu kanam damay faral di wax mais bu ñu demaatee yaakaar ndaa kenn dootu ma jiitul si paleen man maa fay de maa fay nekk même bu nekkee ñaari fan naa fay gis nga léegi bi ma duggee léegi sax maa ngi xalaat ma gis nii euh, yàlla dafa def xalaatu moon ni ay ginaar mais bu soobee yàlla bëgg naa prochaine fois bi may ñëw ma indi la machine boo xam ne maanaam moom mooy déplumer ginaar yi nga xam ne da nga dugal ginaar yi bu ñu ko ree ba pare rek moo koy defar waaw ko bu soobee yàlla moom engagement boo xam ne wax naa ko fii nañu togg seen nga sëñ bi jënañ ñaan tamit rek nga dolli ñu ñaan ñun ay doomu Cees nañu gëm suñu gox gëm suñuy dëkk bu ko defar suñuy dëkk loolu tax ñu jóg li may faral di wax yàgg naa ko wax fii yàgg naa fu nekk nag maa ngi sàkku mais sàkkuma maire bi population boobu ñoom bëgg ni na ma président yi nga présente maire ma man xet naa maire parce que yàlla sutural na ma poste bi ma nekk ni moo gën a poste naa leen naa jël poste ne maire salaire maire du mu ko laal fan laa ko dugal mooy lii nga xam ne maanaam mooy lii ci wàllu social tey ba sëñ bi xëy tey xewle tey sëñ bi lu muy def président mënu ko sax lu muy génn si poosam di ko def si doomu aadama yi loolu mais yàlla rek la moo tax ma bëgg si du soobee yàlla nga dolli ñu ñaan rek gën ñu jàppale sëñ bi incha allah rabbi jàppal ñu bu baax a baax ñun ñu ngi sa ginnaaw vraiment sant la bu baax a baax euh, di la gërëm sëñ bi jërëjëf. mbooloo mi sëriñ bi nee na ma ngi leen di nuyu de te leen siyaare di ñaan yàlla ak yonentam ba sëriñ Touba lii nga xam ni moom ngeen di yootu ngeen jot ci. visite bi nga def nii nee na visite bii nga def ci moom. boole koog jëf nee na boole koog jëf ju rëy ji. teg nañ ko bët. nee sëriñ bi ne teg na ko bët de. amuñu ci àdduna ñun. nee ñoom day amuñu ci àdduna day. suñu wajur. nee lu leen ëppal seen waajur wa. ginnaaw nee ginnaaw sëriñ Touba. ginnaaw rasulullah. ginnaaw sunu borom. nee sëriñ Aliou lan teg sunu kanam de. bis bii mooy bis bi. nee bis bii nag mooy bisu Seydina Aliyu Kan karamallaa wajhahu. ñun sosuñu ko. nee ñoom day sosuñu ko. dañ ko fee fekk. dañ fee bis bi. nee moo ko daan defal boppam. nee bàyyi koo fi. nee joxe ci ndigal. njabootu boppam di ko def. nee njabootam yépp itam. nee wëlbatiku jox seen bopp xalifa sëñ Aliou. nee xalifa ba di sëriñ Mor Kan nee jox sëñ Asan Kan ndigal ni ko dee ma topp tool bis bi muy dox nee loolu moo leen ci dugal ne kon nee moo leen ëppal lépp nee képp ku leen fekk ci bis bi nee duñ la yemaleeg lenn de nee duñ la yemaleeg kenn nee sallu ne nee dañuy ñor ñun nee ndax ñun day bis bi rekk nu ñor nee. message boobu noonu. message boobu noonu. maa ngi koy nee maa koy adressé. nee ñëpp. bis bii nee bis bii. ku ko ci fekk. képp ku ko ci fekk. nee sa yëf yow. nee yamalewu ma koog yenn yëpp. nee di ñaan suñu borom. nee képp ku ci laal. nee lépp looy sàkku. nee yàllaa ko yor. yàlla na la ko yàlla jox. nee te mu gën ci yow. nee te gën ci ñun. nee tubarkalla. la dara nee budul dara. ànd ak ñun julli juma. nee ànd ak ñun julli ji juma. nee loolu ëpp na. ne loolu lu rëy ci sëñ Assane Kane la. ne dafa wax ni juma ji. nee képp ku ma gis nga teg ci tànk. nee soppali ko naa man. sab jaam yow. nee noonu la ma ñore man. nee loo nekk rek danaa ca ne. nee nga ne ci yitte. comme ni nga ko waxee. man la man la jumaa daa jot. ma la yow day jumaa daa jot de. xaju fi xaju fi. nga nangul nga nangul ko ko moom sëriñ bi. manoon nga ni naa dem. manoon nga naa dem. doxi sa soxla. doxi samay soxla. ñun ñu julli ji jumaa ne kon it nu sant la gërëm la. waaye nii nu jumaa ñore. waaye nii nu jumaa ñore. yow noonu la la yow noonu la la jumaa ñore. nga dagg sa yite. nga ñun. chaque année. nee chaque année. suñu julee ba noppi. suñu julee ba noppi. damay def tour. nee day def tour. ku nekk ci barab bi ku nekk ci barab bi. ci liggéey. nekk ci liggéey. fa nga fa nga ne. man nga fa nekkal man nga fa nekkal. nee ëpp na weer ñu nekk ci liggéey bi. nee kon bu amee benn jot. damay dem ci ñoom. nee dana wër ñoom ñëpp. kenn ku ne yëg ni. yëg naa ni yëg naa ni. fi nga ne. fi nga ne man nga fa neel. ne pour ñoom ñëpp ñu gis seen bopp bëgg ne ñoom day saa bu ñu gisee sëñ bi kontaan nee na loolu moo tax muy def tournée boobu muy def nee nga bàyyi yite yi ànd koog moom ne loolu rëy na ci sëriñ bi lool ah, nee na moom lii la am kenn ku ne am nga séeb ne nee na moom lii moo yëfam sëñ Asan nee ma faal fi nga dugal Habib li ngeen ànd ak moom ne du caaxaan de parce dëgg la ci ñun. nee ñun day li ñuy def dëgg la ci ñun. kon ci fekk kon ci fekk. loo nekk loo nekk. nu dëggal ko incha allah nee yàlla moo yor mbir yi de nee ñun ay jaam lañu ñaan rek lañ man yàlla na la yàlla taxaw di jaay Seydina Mohamed nee di siyaare Cheikh Abdoulaye Mbacke mu baax mi toog sëñ Assane nee na bu xarit doon wees sama digganteeg moom dama naan wees na ko nee kilifa la sëtub sëriñ Tuubaa la waaye may na sëñ Ablaat may na boppam sëñ Ablaat nee na sëñ Asan nee na bu soxlaa nee moom day ñëw ba ci moom soo ko sëñ bi soxlaa nee munu ma bul jóg baal ma ñëw nee loolu rëy na nee koo xam ne bu la soxlaa ñëw boo ko soxla mu ñëwal la te muy kilifa bàyyi naa ko ne loolu sëñ Assane ne Baye bàyyi na loolu xel de. ne daraja. du jaamu morom ne du jaamu morom ma. tax ne adduna tax. du ko nangu ne du ko nangu. deret tamit deret tamit. du dagu ne du dagu morom ma. adduna daf koy bañ adduna koy bañ. xam-xam wala man-man wala man-man. du dagu morom ma du dagu morom ma. adduna da koy bañ koy bañ. ak bakkan ne ku not àdduna not bànneex not bakkan nangu ko ne kenn gënu la mbàkke noo ngi lay siyaar mbàkke baax di la jox sa wàccuwaay ne fokk nga fekke lii ndax yaa ko moom de ne wóor na ma ni finaaw bëgg nga ci lool ndax sa yéene ci man ëpp na lool ne koo xam ni foo muy waxtaane da lay nett li loo baax leen na ko ko wax ne yow foo waxtaanee tudd ma. joxe ay référence joxe ay référence ne kon lu ma baax la man sëñ Assane war nga koo xam ne loolu rek moo tax ñu téela fi Mbàkke di la ñaanal yàlla mu taxawu la ne di gërëm ñëpp ne bis bi ñëwagul de waaye coono yi ci ñëpp gis na ko yàlla na yàlla taxaw nu nee li ne ci barab bi la nekk mbaale na kóob nee fan yëpp oto yaa ngi roñ jóob nee lii ay def la yu demagul nan ko fi ba na kon yëf yi kiimaane na kon ki yëf yi kiimaane na nee liñ fi romb lépp gars yi nan ko fi bàyyi nu dem te ñëw ñoom asi defaroo ko ne <laughs> kon barakallaahu a Habib kon dinañ la mën a yewi indi ngay nag indi ngay keek indi ngay ndox ne foofu leen mën a yam nee ma ngi ciy boole yeneen teraanga yoo xam ni seen diggante la ñoom ñaar jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna Awa jërëjëf sëñ bi ne sant nañuy àndoon ak Habib ñëpp bu limee day desal yal na yàlla taxaw leen tale leen loxo yi.